yonent ne ko ñaari nga wax yëpp benn amu ci wàññiwuñ julli gi fàttiwuma suul ya day ni ne ko loolu kay am na lu ci am benn fàtte nga wala wàññi nañ julli gi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jàkkaarloog mbooloo ma ne leen mu ndax waa ji li mu wax dëgg la saxaaba yi ne ko naam li mu wax dëgg la de moom kay ñaar rakkaa nga julli xamuñu nag ba xam dañoo wàññi julli gi wala déet yonent bi alayhi salaatu salaam daal di mottali julleem ga la nga xam ne moo ca des daal di sujjóot ñaari sujjóot fekk boobu ma nga toog baada taslim yi ginnaaw ba mu sëlmalee foofu la téere bi yam al axdari yi mbokk yi tàbbi yi li nga xam ne moom lañ doon tiim doon ko jàng ay at a ngi nii mu di téere bii di al axdari dégg ngeen li nga xam ne moo jot a wàcc ci ay masala am ay dalili fiq yoo xam ne ak i delluwaay ci usuliya nga xam ne mooy li sariya tëral al mutahara nga xam ne ca la fuqaha yi di dellu ñu tudde ko usulul fiq lu tax lii nuñ koy defe mu nekk loo xam ne lu ñu munta jàng la fuqaha yi téere bii di laxdar yi ba demee ci al ustaas Alioune Guèye ca cene ba tabarkalla def na ci liggéey bu am solo tàmbalee ko ca fi mu tàmbalee ba fi mu jeex def ko ci ay kaset yal na yàlla fay ko te yokk wér-gi-yaram boo demee ci maam ji ñuy wax maam borom Tuubaa jalla anhu bind na ca téere bu ñu tudde jawharu nafis boo demee ci fii ci Mali alxaaji Saad ibnu Omar ibnu Saïd def na ci téere tudde ko xallul masail fi sarhi muxtasar al axdari bi dalail doom ja ñëw moom it def ca téere gën a saraa li baayam bindoon tabarkalla boo demee it ci Muhammad Qani ñu ngi ko bind ci suwaal ak i jawaab ala kitaabil axdari loolu moo ñu ci yóbbu woon ngir ñun tam ñu ubbi woon ko doon ko topp ak yéen tabarkalla tey jii la yàlla dogal ñu jeexal ko téere la boo xam ne daal ku bëgg a dégg fiq tabarkalla téere bu am solo la yal na yàlla fay ka ko liggéeyoon ak cheikh abdourahman al axdari mboolem ku ma sa liggéey téere ci laxdari it yal na ko yàlla fay ñi ko jàng yàlla barkeel la di seen jàng inna allaha yudaafiu an allazina amanu rabbana la tusi qulubana bacda is hadaytana wa hab lana min ladunka raxma innaka anta alwahab rabbana axfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج سبيلهم في تبليغ دينه والعمل بما جاءت به شريعته wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon mbokk yi ñu doon topp ak seen ñu fi ñu war a yëkkatee jataay bi jox suñu mbokk yi ci wàllu xibaar yi tubaab yi duñ ci noppee ñu dellusiwaat fii ak yéen insha allah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا مرقد السحاب مرقدنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا مرقد السحاب مرقدنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا مقادر السحاب بالعلم والإيمان مركزنا ينادي وصحبة القرآن مركزنا ينادي نبغي رضا الرحمن مركزنا ينادي والفوز بالجنان مركزنا ينادي بالعلم والإيمان وصحبة القرآن wasalaam ala rasulillah mb- mbokk mi dafa am laaj bu mu laaj am na ku la ci woon waaye nañu may tuuti rek ñu tontu ko laaj bi mu di dafa wax ne ku doon julli gee nga julli benn rakkaa toog nan ngay def ni muy def mooy ginnaaw dafa juum ba toog fi te waru fee toog bu ñëwee ci rakkam ñaar lam fa lay toog waaye toogaayam bii nag na xam ne da ko yokk ci julli gi mu sujjootal ko ba'da salaam nee na ndax nit mën naa dem ca réewi tubaab ya takk fa ab tubaab waaw waaw waaye su fekkee ne nit daal mi ngi takk la ko lislaam waxoon mooy fasfar bi zaati diin na wut borom diine takk ko loolu mooy li gën bi maana ku say mbokk na ngoo may soxna daal say mbokki jullit say mbokki dëkkandoo say mbokki am di jàmm loola mooy jabar ji gën a nekk tànneef su ko defee loolu ñaar laaj jógoon ci kii di Babacar Diallo nekk ci Pikine tànk la fi woote di ko laaj tabarkàlla kon nag Salif ni ñu def mooy ànd ak ni ñu daan ànd ak mbokk yi ci 823 17 17 wala 821 00 07 ginnaaw bi ñu déglee xibaar yi tubaab yi ba noppi ci suñu mbokk Mouhamed Faye am na ko la ci yoon bisimilah.
asalaamaaleykum wa rahmatullah.
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
yaa ustaz.
soxna Diagne Ba.
Sall.
waa kay Diallo.
ana waa kër gi.
ñu ngi sant bu baax a baax.
alhamdulilah.
naka waa parcelle yëpp.
ñu ngi sant.
alhamdulilah.
jàmm rek.
bisimilah.
baax. ñoo alhamdulilah.
ngi nuyu ñëpp.
ñu ngi lay fay ñoom ñoo ngi ñëpp.
kontaan ci darse bi.
Mhm.
am na solo trop.
alhamdulilah.
ndaxte julli dafa di loo xamante ni lu am importance la.
Mhm.
julli moom mooy ginnaaw ba nga ba ñu waxee ñaari baatu sa ñaari baatu seede yi Mhm.
moom mooy sarata bi nga xamante ni moo njëkk.
Mhm.
ndaxte boo seetee sax tu- turu jullit sax ci julli la jóge Mhm.
pulaar tamit dafa naan jullu mooy maanaam kuy julli Mhm.
donc koo xamante ni bàyyi nga julli rek Mhm.
dafa mel ne ni yaa ngi bëgg a génn ci ci ci farata yi ci Mm.
charte yi Mhm.
kon nag julli lu am solo la Mhm.
dégg nga te julli gi nag dañu fexe nag di ko di ko sellal Mhm.
ndax muxlisiina lahu diina la la yàlla wax Mhm.
di ko julli di ko di ko sellal ndaxte julli bu sell dafay ñaanal aji julli ji Mhm.
waaye bu fekkente ne dafa safaanoo nag loolu yàlla nañ ci yàlla musal loolu baax amiin wa iyaakum.
waaye léegi nag ñu daal di def julli yi nag comme ni mu war a parce que boo gisee rek yàqu-yàqu yi bëri Mhm.
parce que julli yi moo moo normalatul Mhm.
ndaxte borom bi nee na inna salata tanha ani fashaa'i wal munkar Mhm.
bu fekkente ne dañuy julli di ko sellal rek di dinañu bañ a def daal ñomb téef Mhm.
te tey tamit julli nekk na loo xamante ne moom la ñuy njëkk a xisaab ëllëg su baaxee rek yëpp baax su baaxul nag yàlla nañ ci yàlla musal amiin wa iyaakum. yow defe naa jàng Laxdari.
waaw am na lu ma ci jàng de waaw lan la wax ne moo njëkk a war a mu mag.
li ko njëkk a war mooy topp farata yi li njëkk a war mag mooy topp farata yi waaw maanaam
maanaam fara farata yi nga xamante ni moom moo war mu kàllaf waaw waaw mooy moom moo njëkk a war mag waaw waaw waaw mhm.
topp
ginnaaw ga topp topp farata yi mm, ginnaaw ba mu toppee farata yi mm, maanaam ginnaaw ba mu amee ngëm daal waaw ngëm gu sell mhm.
mu mën julli waaw mu mu mu mën daal def jaamu yàlla yi mhm.
maanaam julli mu xam nu ñuy jullee mhm.
mu xam nu ñuy nu ñuy laabe mhm.
maanaam sangu farata wala jàpp wala yu yu demee noonu ndax borom laxdar yi tudd na wàllu koor ankay ginnaaw ba mu paree ci laab bi mhm.
koor la ci teg waaw ndax jàngale na ko nag moom ci biir téere bi
ci biir téere bi man de ci baqara laa jàngee ni ñu nu ñu war a wooree waaw sootul baqara kon borom laxdar yi moom jàngalewul koor waaw kay moom daal nee na li njëkk war mag mooy mu defar gëmam ba mu wóor ko Mhm, mu jàng ba xam nu muy defaree far farata yi war ci moom mhm.
lu mel ni àttee julli atte julli ak set ak woor xetal ak woor waaw damaa bëgg tey auditeur bu ñëw rek ma laaj ko benn laaj ci ci laxdar yu ginnaaw dañ ko doon topp dëgg la ku ci ñëw rek ma laaj la benn dëgg la yow nag yiñ la laaj tubaarkàlla tontu nga ci tontu jum na man nag xam nga julli dafa nekk loo xamante ne dama ko daf maa farataal daal ba nga xamante ne fu ma gisee loo xamante ne daf da ciy wax rek damay fexe tënk ko ci lu wér moo taxit man affaire njuumte yi bu njëkk daf ma ci doon dama ci doon am problème waaye bi bi nga ma ko tënkalee ba léegi dama dama koo takk alhamdulilah wàññi xa waaw yokku ba waaw wàññi yokku ba wàññi yokk xaa wàññi yokku xa waaw waaw Waaw.
maanaam boo wàññee Hmm.
da ngay def qabla salaam waaw balaa ngay sëlmal Mhm.
nga def ñaari sujjoodi mu ngoog boo yokkee Hmm.
boo sëlmalee ba pare Hmm.
nga def ñaari sujjoodi mu ngoog boo yokkee nga wàññi Hmm.
nga def balaa ngay së balaa ngay sëlmal nga def mu- ñaari mu- sujjoodi waaw kay yow boobu moom mokk na waaw wàññi xa yokk yokku ba ba wàññi yokku xa alhamdulilah bu ko defee nag man Mhm.
parce que ñetti kii rek nga ma waxoon ni moo mën a am ci julli Mhm.
da ngay wàññi rek Mhm.
mbaa nga yokk Mhm.
mbaa nga wàññi nga yokk waaw waaw léegi nag Ngoog.
boo boo tënkee loolu rek Mhm.
man su ma jullee ba jul sax damay wàññi xaar wax ko ci sama xel ma ni maa ma ni daal mu daal dëkk rek nga def ko waaw mbaa ma ni daal léegi bu fekkente ne léegi damaa wàññi woon Mhm.
balaa may tëj naa fexe ba mu fees Mhm. dëgg la damaa wàññi Mhm.
balaa may léegi léegi maa ngi ko expliqué abi Mhm.
man ko boo wàññee Mhm.
balaa ngay tëj fàttali ko ba mu fees dëgg la ba mu fees nga soog a tëj Mhm.
boo yokkee nag Mhm.
nga tëj nga génnee li ëppoon Mhm.
ma man noonu laa ko tënkee ba tey noonu la waaw tabaarkàlla waaw léegi léegi nag bi loolu paas te encore am na ci ñi nga xamante ni dañuy dugg aljanna Mhm.
yàlla nañ ci yàlla boole amin ba ñu laajee ñi nga xamante ni dañoo nekk ci safara Mhm.
dañu leen ni maa salaxakum fii saqar Mhm.
lan moo leen indi fii ci safara si Mhm.
ñu ne lam yakun minal musallina lam naku lam nakun minal musallina Mhm.
ñun kat daawuñu julli Mhm.
kon nag loolu njëkk a wax parce que julli dafa am importance Mhm. door caata geñ door teg door caa teg wala mu naxu nutximul miskina te walam encore naku lam naku minal musallin walam naku nutimul nutximul miskin miskin te tamit daawuñu lewal miskin Mhm.
kon daal man julli dafa am importance tabaarkàlla te farta yépp ci suuf la fekk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mhm.
waaye julli yàlla da ko ne yow rek yaay ñëw tabaarkàlla wóoluwuma kenn moo tax moo ci gën a jafe waaw du ma ko teg ci loxo kenn Mhm.
il faut nga ñëw ba fii tabaarkàlla waaw léegi nag dafa am ay laaj yu ma la bëggoon laaj waaw maanaam euh, julli naafila yi julli naafila yi Mhm.
léegi dama bëggoon a xam parce que julli yi dañu waxoon ni juróom fukki julli la juróom fukki julli waaw juróom fukki julli wala juróom fukki ràkka juróom fukki julli juróom fukki maanaam mooy juróom fukki raaka rek waaw mooy Mhm.
juróom fukki ràkka Mhm.
léegi nag fukki yi ak juróom ñaar ñoom ñooy farata Mhm.
léegi nag naafila yi Mhm.
nan lañ ko nan lañ ko séddalee daal ci julli gi waaw maanaam man xam naa ni ci suba gi moom balaa ngay julli fajar ñaar yi waaw ñaari suba waaw ak ñaari ak ñaari fajar yi waaw waaw balaa tàkkusaan ñeent xama balaa tisbaar ñeent suratu duha ñaar ah suratu duha suba gi maanaam yoor yoor waaw waaw bu jël bu yoor yooree waaw ñeent ñeent wala ñaar ñeent ñeent waaw ñeent baax na ñaar baax waaw balaa tisbaar ñeent na waaw après tisbaar ñeent ñeent waaw balaa tàkkusaan ñeent waaw kenn du yokk tàkkusaan ci ginnaaw waaw timis après timis juróom benn waaw gee juróom benn balaa gee
balaa gee balaa gee ñeent waaw
boo paree gee waaw juróom benn waaw waaw ak safa ak witar waaw safa ak witar waaw waaw soo boolee loolu loolu lañ daan topp ba mu joxe juróom fukk ci ay rakka soo yoroon sa kurus di wax naan gee ñaar tusbaar nangam fanweer la ak ñett boo noppee waaw fanweer ak ñett boo ci boole fukk ak juróom ñaar muy muy juróom fukk waaw waaw ngoog léegi nag bu fekkente ne da da nga bëgg di ko julli hmm te heure farata bi jot hmm est ce que am nga droit naafile ba pare te Eh, heure bi dugg na waaw heure bu duggee te fekk ñu kàbbar di julli ngay julli ci mbooloo doo fa julli dara waaye su taw fekkoon tey deux heures et quart dafa jot jay na ba dong di julli këram mën ngaa julli li nga bëgg a julli door a julli sa tisbaar jooju ndax li ngay julli du tax waxtu wi weesu dëgg la waaye su fekkoon ci mbooloo nga nekk nag nga ñëw ci jàkk ji ñu kàbbar di julli doo fa julli lenn lu dul julli gi taxaw isaa uqimati salaatu fala salaata illa al maktuba Mhm.
léegi nag bu fekkente ne da nga jël naafile bi dégg di naafile waaw est ce que dafay doon farata ci yow obligatoire chaque jour nga war koo def déedéet yonent bi alayhi salaatu salaam daf ne woon kenn ku ne ci yéen na fexe ba gàddu lum attan ndax yoon yu daa sori te lu ngeen yóbbu ñu fay leen dëgg la waaw waa kay sàll alhamdulilah ñoo ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziar ñëpp sant ñëpp tabarakallah ñoo ngi nuyu Adja Yacine sa alhamdulilah Kiev moom it mi ngi lay fay soxna soxna Marème mi ngi lay nuyu Mhm, maa ngi koy fay Marème Diagne waaw tabarakallah maa ngi nuyu ak Kat- Kati Jaxate ak Mariama Ndiaye maa ngi nuyu ñëpp bëgguma lim ndax ku lim juum maa alhamdulilah ngi nuyu ñëpp alhamdulilah tabarakallah jërëjëf sàll tabarkalla soxna soosu di soxna Diagne ba dugg bi am na solo lool ñu ngi ziar suñu mbokk bi nga xam ne moom itam moo di Serigne Omar Ba nekk ci parcelle bi. tabarkalla am na ku ne ci yoon bi di ñëw bisimilah.
allo asalaamaaleykum.
salaamaaleykum bisimilah.
kooku Oustaz waaw.
Oustaz Sall waaw.
ah, ah, ñoo ngi leen di gërëm bu baax jërëjëf fooy wootee.
ndar ndar Ndar.
waaw Pape Toulé Yadd Pape.
Toulé Yadd Tulle Yàdd.
waaw aha waaw maa ngi fi woon temps yële ci kaw wax nga dëgg.
ñoo ngi lay gërëm bu baax ci ñëw bi nga fi ñëwoon jërëjëf.
ci conférence bi macha allah walaay.
mbir yi leer na nañ alhamdulilah.
kontaan nañ trop trop trop man itam kontaan naa ci waa Ndar lool.
waaw kontaan nañ ci yow trop ak suñu mbokk mi di Pape Jamaay Thiaré.
waaw macha allah tabarkalla bisimilah.
ñoo ngi lay gërëm ci al axbari bi ni nga ko leerale Mhm.
macha allah leer na nañ ñoo ngi alhamdulilah koy topp di ko suivre bu baax a baax a baax est-ce que yi.
alhamdulilah rabbil alamin Mhm.
ñoo gërëm ndaw soosu nga eh, doon wax léegi léegi waaw soxna Jayna ba macha allah leeral na moom tamit macha allah bu baax daal waaw Pape Yade waaw yow sarti tuub ñaata la sar ci tuub Hmm.
ani yëpp yéene waaw
suru surul sawbati waaw ani yëpp yéene waaw
in eh, subhanallah inda inda suru eh, inda suruway Hmm. inda suro yi ma defoon mooy bu ñuy jàpp so subhanallah Mhm.
sodoo la wa jaaxoo waaw tabarkalla ani yetu Mhm. yéene yéene ba pare waaw loo yéene yéene tuub ji Mhm.
waaw
waaw
jënd te réer naa de waaw baax na xam naa li mu ne ci antenne bi lii la moo tax waaw tabarkalla ñu ngi ziar waa Ndar yëpp waaw macha allah jërëjëf waaw kontaan nañ ci jokkaloo bi lool waaw macha allah ndax itam seen dëkk boobu dëkku xam-xam la waaw macha allah ba léegi ñoom gis nga seen daar yi ni mu feese aha te itam dëkk yu bare bari yaa ngi gis nit ñi laxas di ñëw ndar di jàng ba léegi aha aha waaw mooy daara yu ñu doon ziar keroog macha allah tabarkalla rawatina daara ju mel ni daara yi xaaji Mohsin Diop Hmm, yal na yàlla yokk ko yërmande macha allah amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf waaw jërëjëf waay jàmm ak xéewal amiin
mbokk moomu di woote muy Pape Yade doon woote ci ndar tabarkalla dégg ngeen moom itam dugg bu am solo bu nga xam ne moom la dugg mi ngi dem na ba teg ñaar fukki minutes ak juróom-ñett fii ci Sud FM seen rajo ñu ngi ànd ak suñu mbokk Salif Sow ci wàllu xarala wi auditeur bu ñëw bu nekk tey benn laaj mi ngi lay xaar ci laaju laxdar yu su fekkee dugg nga ba indi say kàddu wala indi say nuyoo wala indi sab laaj ci 823 17 17 wala 821 00 07 tabaarakallahu am na ko ne ci wàllu ne lañ ñu ngi koy seen muy ñëw xam naa léegi tey mu agsi ci 823 17 17 bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatullah.
oustaz waaw.
man la Aïcha Ndoye Aïcha Ndoye.
Ndoyeen Mbacke ah soxna Aïcha na nga def.
maa ngi si yaa ngi Mbàkke noonu.
maa ngi Dakar ah yaa ngi Dakar.
waaw tabaarakallah.
barakallah na ngeen def.
ñoo ngi si rek alhamdulilah.
alhamdulillah kay bisimilah.
oustaz dañuy baalu ak yàlla ñu yàlla boole baal.
di leen ñaanal yal na leen si yàlla bàyyi ba si kanam a kanam amin way yaaki.
vraiment daal yéen a ngi ñuy dimbali bu baax alhamdulilah.
kii bi moom thème bi moom chaque jour ñu ngi koy déglu Mhm.
mais duñ am benn yoon moyen pour woote waaw dëgg la.
xam nga heure bi day xaw a guddi Dëgg la.
foofu ñuy woote dëgg la dëgg di la la jot dëgg la dëgg la.
ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax alhamdulilah. waaw ma ne.
waaw déggoon nga laaj bi ma laajoon Sëriñ Yàdd léegi.
Serigne Yadda waa déggoon na muy sarti tuub ñaata la.
sarti tuub Hmm.
xanaa mooy waaw.
aniyatu mooy yéene Hmm.
alaa yahuda ba duma dellu Hmm.
ilaa zambin ci bàkkaar loolu muy benn.
fii maa bàqee ci di des Hmm.
min umrihi ci sama dund waaw waaw loolu benn la ci.
waaw waaw kon benn boobu la.
waaw waaw góor kon nag léegi nit ki maanaam nee nga foofu moom na fas yéene mhm, bu mu delloote ci bàkkaar bu ko tuubee waaw waaw boobu bu am solo la tabaarkàlla waaw jërëjëf soxna Aïcha waa kay yàlla na yàlla Oustaz- musal ci bàkkaar amin oustaz dama lay doon laaj benn laaj waaw waaw comme ça sujootu kii xabla salaam hmm léegi boo jullee timis ba pare hmm ngay julli timis hmm si ñaareelu rakkan bi hmm nga juum si taaye si taaye bu mujj bi hmm léegi ndax xam nga loolu da nga yokk si julli bi ndax danañ ko sujjootal waaw loolu ndax da nga koy sujjoot déedéet doo ko sujjoot maanaam ku taaye woon ba taaye jeex ah nga wax ci allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ba mu jeex ah loolu kenn du ko sujjootal ah déedéet waaw kay mhm jërëjëf soxna Aïcha Ndoye waaw kay tabarakallahu dëkk ci Mbàkke ñoo bokk koñ maak moom waaye mi ngi fii ci Dakar doon woote sànq dégg ngeen li mu indi ci jotaay bi am na ku ne ci yoon bi ñëw bisimilah. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah al oustaz Mouhamad maa ngi lay ziara yàlla na yàlla nangul la ziyaara amin ya rabbal alamin yàlla nañu fekk déwén macha allah ñu ngi koy ñaan ñun ñëpp na ko waa Ndar yëpp ñëpp a ngi fi bisimilah ñu ngi lay ziara bu baax yàlla na yàlla nangul la di ziyaara.
ziara mbokk auditeur al bidaya Mhm, di ziara suñu président Sarr mhm, ak sama yaay soxna Jeynaba mhm, di ziara mbokk ndar yëpp mhm.
ak képp koo xam ne macha allah yaa ngi déglu dars bi ñoo ngi la ciy ziara bu baax a baax Mhm.
di ñaan di la ñaanal yàlla yal na yàlla yokk xam-xam bi te barkeel ko amiin di di la xamal ne waa Ndar ñu ngi kontaan ci sa ñëw ba nga fi ñëwoon boobu ba boobu ba léegi alhamdulilah Euh, di fàttaliku itam di ñaan ne euh, kaset bi nga xam ne moo di soxna wasilatu Penda Diop wasiyatu wasiyatu Penda Diop Mhm, euh, ñu ngi ko am na ñu bari ñu ko fiy sàkku daal mhm.
Euh, leneen li ci de sonn itam mooy macha allah euh, taalif bi nga fi defoon Mhm, euh, am na ñu bari ñu ci ñu ñu ko bëgg mhm.
Euh, da nga waxoon ne njërim du xëy moos ñàkk sa baay bu baax bi lu jur waaw waaw taalifu oustaz Cheikh Tidiane Gaye bu Louga ah oustaz Cheikh Tidiane Gaye bu Cheikh Louga Tidiane Gueye waaw waaw njirum du xëy ñàkk moos ñàkk moos sa baay bu baax bi lu jur waaw fekk yaa ngi am feeg yaa ngi am yu waaju baax la yar ju mat taxaw di la yar kon ñoo ñu am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi koy sàkku daal incha allah waaw incha allah rabbi tabarkàlla dinañ ci bàyyi xel incha allah Ah, Euh, benn maa ngi lay mbokk bu jotalee baax a sox baax bu ñuy wax Cheikh Tidiane Gaye ci Louga incha allah inspecteur moom moo koy liggéey tabarkàlla incha allah Mhm, maa ngi lay jotalee nuyoo soxna Abibatu Kan mhm, ak euh, mbokki waa Gàndong yi yëpp mhm, ak mbokki waa Pikine mhm, euh, di la ak soxna soxna Bey mhm, ñoo ñëpp ak sama oustaz Seydina Omar Ka mhm, mi ngi nii taxaw xam naa moom laa lay jox nag da waxtaan ak moom tuuti mhm. ginnaaw ziare boo ñëpp ginnaaw ak- boo tontoo sa laaj ci laxdar yi waaw waaw aywa bismillah waaw sa laaj mooy bi ma doon laaj ba léegi rek waaw mooy sarti tuub ñaata la waaw maanaam dafa waxoon ne wa surutu tawbata lii di chartey tuub ànd na da mu ngir riccu Mhm, ala ma faata ca la weesu woon mhm, wan muy niyatu muy nga muy- muy benn.
waaw wan niyatu nga fas yéene Hmm, ala yaxuda ne dootul dellu mukk hmm, ila zambin di jëm ci bàkkaar mhm, ci ma bàqee ca la nga xamante ne moo des hmm.
min umrihi ci dundam muy ñaar.
wa an yatruka mu bàyyi Hmm, almasi ata mooy yàlla hmm.
fii saati a ca saas ya baarakallahu fiiki.
alhamdulilah Ah, ma jox la fii- sama fii- ustaas Seydina tabaarakallah.
Omar Jërëjëf.
alhamdulilah alhamdulilah kooku mooy oustaz Mouhamadou Lamine Thiam di woote ci ndar tubaarkàlla dégg ngeen tontu yu am solo yi ci sart tuub waaw oustaz bisimilah oustaz bisimilah dafa mel ni dafa am lu xew ci ligne bi tubaarkàlla oustaz Mouhamadou Lamine Thiam boobu moo doon bëgg a ñëw am na keneen bisimilah minuit dem na ba teg fanweeri minute ak ñett fii ci Sud FM seen rajo ci 823 17 17 wala 821 00 07 auditeur bu ñëw am fi ab laaj ci laxdar yu tabarkàlla ginnaaw bi nga defee sa nuyo wala sa laaj yow tam ñun tam ñu jëm ci yow laaj ndax tey la seen téere bi ñu tuddee al axdar yu jeex tabarakallah mbokk mii di euh, Lamine Thiam tontu na ci tontu bu jub moo ko soxna Dieynaba Diallo mu di sarti tuub ñett la da ngay réccu na duutoo da ngay réccu li nga weesu lu tax nga ko doon def bu ñaareel bi nga fas yéene duutoo def benn bàkkaar li des sa dund bu ñetteel bi mooy nga bàyyi li ngay tuub waaw am na ku ne ci yoon yi bisimilah allo asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah bis aha.
sàll ngaari sant wa seen pen seen seen seen waaw aha.
waaw sàll sàll waa kay seen sàll kooku soxna Roqee Seen ah ay sox kii soxna Fatou Seen ah la soxna Faat Seen waaw ku la topp la nag yàlla nañu yàlla boole sopp depuis ba nga nekkee si maanaam rajo dunia rajo ba bi léegi ñu wax nga dëgg fooy wootee nii man maa ngi wootee Géejawaay Géejawaay.
mooy ki la saa di faral di yóbbante si man nuyoo wax nga dëgg kay sàll tabaarkàlla Seen sàll na alhamdulilah ngeen yendoo naka xale yu alhamdulilah yàlla sàll nañu fekk déwén ñu fekk déwén alhamdulilah baal leen ñu àq baal yàlla ñu yàlla leen boole bu baal.
baax. ñu ngi baalante àq bu baax a baax tabaarkàlla may baalu ñëpp àq c'est la Yàlla ñu yàlla première fois boole nag baal.
boobu ba léegi Mhm.
maa ngi soog a dugg dama daan composé ba sonn mënu ma dugg même nga keroog dëgg.
maa ngi woote Waaw.
saa naan ma am na benn secret daan na ma jox secret bi waaye Mhm.
tey moom jéem naa fexe ba dugg waaw waaw tabaarkàlla waaw, tabaarkàlla Tey la ko yàlla maa ngi koy dogal.
nuyu bu baax a baax di nuyu kati jaxate bu Ñu baax ngi a lay baax fay.
Mhm.
ñu ngi lay fay Euh, dafa fekk nag ne dafa am benn question bu ma bëggoon laajte waaw waaw bisimilah Euh, comme ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañu Mhm.
nga xam ne buñ dee faral di julli dafa euh, seytaan daf ne faral di ëpp doole lu bëree bëri Mhm.
comme ça ni booy julli di ëbbali bu bëree bëri mayu nii nga Mhm.
commencé julli rek commencé ëbbali ëbbali Mhm.
wala ngay julli ba ci yàgg nga fàtte li nga naroon tari nga fàtte ko Mhm.
yooyu daal daf may faral di dal lu bëri daal Mhm.
waaw ma bëggoon boo bëri xam daal boo bëri ñaare ah euh, yee koy waral ah xiif ah wala gëmmeentu wala tayal waa tayal waaw xiif wala gëmmeentu wala tayal dëgg la ñett yooyu ñaare mooy waral ubbali dëgg la Euh, kon mënees na koo xaw a moytu tuuti dëgg la fexe ba bu nit ki di julli rek mu sori ñett yooyu Mhm.
su ko defee ubbali mën na koo sori dëgg la kay Euh, ñaata laa julli nag ak ndax li mu julli mat na ñaare seytaane mooy jax-jaxal nit ci biir ak julleem dëgg la loolu dañ koy jéem a dindi ci suñuy xol di bëril wax a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim ak di faral di saxoo njàpp dëgg la kay ak yu demee ni ki yooyu dëgg la loolu mooy dàq seytaane ci suñu diggante ñu ngi sàkk ñaan bu baax a baax ñu ngi alhamdulilah kontaan di rafet ci jotaay yow defe naa jàng nga lax dara yow Euh, man xam man nag damaa jàng mais maa ngi gëstu tuuti tuuti yaa ngi gëstu waaw waaw tabarkàlla gëstu bu baax a baax a baax bëgg naa nag ñu gisee incha allah Aha.
ne soxla naa say ñaan wax dëgg yàlla waaw yàlla na yàlla defar say mbir amiin defal suñu te mbir defar suñuy ànd mbir ak lu mën a xew amiin aha jërëjëf Sall jërëjëf ñu fanaan jàmm alhamdulilah 823 17 17 wala 821 00 07 soxna Fatou Sène ci Géejawaay moo gën a léegi bisimilah
waaw salaamaaleykum waaleykum salaam Sal Salim waaw ngi siyaare way yàlla na yàlla nangu ziar ngi siyaare béréer jërëjëf sal neen def sant bu baax yéen laa deful dara fooy wootee maa ngi tey jii nag maa ngi fii ci Ndakaar moom ci Castor waaw yaa ngi Kastoor Ibrahima Niang wax nga dëgg waaye ah maa ñu ngi ñu ñu ñu ñu bisi nga ñu bisi naa wax nga dëgg di rafetlu jotaay bi weesu jërëjëf ci ak soxna euh, kii Roqe Roqayatu Gaye waaw dina ci ñëwaat bu quatre heures jotee incha allah dafa am lu ma ci rëcc ndax boobu naa fekk njaari waaw ba ma jëfee sama laaj ba. laata mu koy déglu rajo ba ma yoroon. maanaam pileeg jeex ba fa guddi ko moom dama ko fanaanee nelaw moom.
wax nga dëgg.
daanaka lépp raw na ma daal.
dinañ ci dellu siwaat bu quatre heures jotee incha allah.
incha allah ndax am na auditeurs yu bari yu ko laajaat waaw dinaa dinaa dégg.
ndax jotaay bu am solo bi ak soxna wax waaw incha allah.
gannaaw bu loolu dafay di rafetlu liggéey bu baax a baax.
alhamdulilah ñaan suñu borom mu gën laa taxawal.
amin dëgëral la.
yàlla na ko boole.
dëgëral dëgëral la guddal saw fan.
Mhm.
yéen ji nga am ci ñun ak ñaan yi ngay ñaan jëmale ko ci jullit yi ak li jullit yi ñaan jëmale ko ci yow lépp suñu borom nangu ko.
amin ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
sallallahu alayhi wa sallam dina xam ne rek comme ni ma la ko daan waxee yéen a ngi am résultat bu baax a baax parce que damay wax ne toujours dafa am ñaar yoo xamante ni ñun moom lañ waroon a jàng bàyyi lépp. ñu far bàyyi ñaar yooyu jàngi leneen.
Mhm.
muy muy li nga xam ne moo ñu sonal ndax nit ki àdduna xam ne ne kenn mënta dem te ci jubóo jubóo sa borom wala nga jéem a jaar ci yoonam.
est-ce que bu dee fii ci réew mi nag man dama ci def ñaari remarque yoo xamante ni defe naa daal loolu li gën a sonal ci la woon.
Mhm.
muy suñu culture maanaam suñu aada yu baax yi nga xam ne dañ ko amoon Mhm.
ñu xaw koo bàyyi.
di ko maanaam- di ko di ko tàmbalee ñàkk Hmm?
ma ne di ko tàmbalee ñàkk Euh, waaw di ko tàmbalee ñàkk dem nañ ba tubaab bi nga xam ne moom lañ toppoon sax xaw- gindi nit ñooñu pour ngeen jàng seen làkku réew lu demee noonu.
Mhm.
doog a mën a jëriñu.
dëgg la boobu ñu bàyyi ko fi bi ci des mi nga xam ne mooy di kenn warta bàyyi muy diine ji nga xamante ni moom la suñu borom wàcceel ñu nga xam ne ci la lépp lépp lépp lépp lépp luy defar luy defaroo ñu xawoon ko ni gis ci Sénégal xam nga ñaar yooyu nag boo ko bàyyee boo xawee ni gis ci mbéy bëgg a jëm kanam moom dina metti dëgg la waaye de itam alhamdulilah def naa remarque bi ne bu dee diine ji moom maa ngi ñaan ñëpp def ne waa si rek yaatal ko bu baax a baax ba rajo bu nekk ñu ubbi ci ñu mel ne Oustaz Saliou Sall rek alhamdulilah mais amin même culture bi noonu ku mel ne oustaz Pape Joxaane léeg-léeg mu def émission daal ci dellusiwaat ci yaru cosaan yi nga xam ne parce que suñu mag yi dañoo amoon yar yoo xamante ni day xaw a méngoog diine dëgg la mel ne su mag duggee ci kër nga sargal ko jóg xajal ko mu toog yooyu yëpp diine def ko nangu ak yu Dëgg la.
bëree bëri xam naa ne yow xam nga ñaar yëpp ba Dëgg la.
yàlla baax na la ñaar yëpp xam naa ne yam ki la xam yooyu alhamdulilah ay yooyu ñaar ñu xawoon a bàyyi moom ba tax ñu indi ci ñëw nañ ci dellusi Mhm.
buñ buñ buñ mën ko jàpp ñaar yëpp tamit ñu dellu ci diine ji rek lu ñu Mhm.
xam ko su néew rek mooy li ñuy jëriñ tubarkal maa ngi ciy rafet njort bu baax na nag defe naa ne ñu ngi ciy am résultat daal di ñaan yéen ñu koy taxaw ak yéen ñi ngeen ci am suñu borom daal du dool ñu cee dimbali. di leen wax rek amin wa yaakum loolu leen di ñaanal rek te xam nañ ne bu ngeen ci yàggee rek incha allah lu bëree bëri yu yàqu woon yaakaar nañ ñu defarwaat.
alhamdulilah waaw xam naa ne nag sama laaj ba lay desuwaat wala ma déglu ko rek xam naa ne tontu war nga mën ci. ndax waaw waaw xanaa xanaa kay léegi sa laaju lox daruy yow rek sama laaj la la xaree yu ne xam nga lu ma ci jàngam.
Mhm.
mooy li ngay leeral rek sëñ bi li li ci yow daal man laay jàng sëñ bi.
alhamdulilah waaw ci yow moomu daal.
kon nag nga dàkk fii laay jàng ba lépp la jox rek ma jéem ko def.
kon nga dàkk jotaay boobu bu ñeenti waxtu jotee incha allah incha allah ci kanam te dinañ ci ñëw waaw maak seen mbokk mi comme di ni nga ko Saliou waxee ni nga ko waxee sànq rek noonu la daal.
Mhm.
donc daal gannaaw boo ko boo boo jëfee rek nga jëm pare loolu ci boppam ngay njëkk a rëccu.
waaw daal di am yéene nag parce que yéene ci lu mel noonu dootoo ca dellu.
Mhm.
loolu moom lu ci am solo la.
Barkalla.
nit ki defe naa tamit lu mu dem ba def ko xalaat ni liy jaadu mu mu mu wëlbatiku yedd yedd ci boppam.
Mhm.
loola war naa am lay fay day jëm caa góorgóorlu baax ñaan suñu borom mu jàppale ko ci mu jëm caa bañ a def.
tabaarkalla ci tabaarkalla gàttal bi daal defe naa ne loolu la. ñu jërëjëf koy bàyyi xel bu baax a baax nag.
jërëjëf Thierno Birahim Niang jërëjëf waay.
jërëjëf jàmm ak xéewal dolli wér gi ak xéewal.
alhamdulilah 823 17 17 wala 821 00 07 minuit dem na ba teg ñeent fukki minute fii ci Sud FM seen rajo am na ku nekk ci yoon wi bisimilah salaamaaleykum wa rahmatulah.
waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay siyaar.
taqabbalallahu minna wa minkum naa leen sant yàlla bu baax xam nga li baax.
fooy wootee ay wootee asale.
asalem waaw. ma yeewu léegi rek déglu émission bi.
waaw tabaarkàlla maa ngi kontaan si lool.
jërëjëf jërëjëf yal na ci yàlla kontaan amiin te tuyaaba ji mu boole ñu ko ñun ñëpp amiin amiin. na ngeen def.
sant yàlla bu baax alhamdulilah.
bisimilah
émission bi neex na lool.
alhamdulilah maa ngi kontaan.
jërëjëf ñaan yàlla yal na yàlla nangu lépp.
amin wa yaakum barke yonent bi.
sallallahu alayhi wa sallam affaire tuub bi ngeen doon wax noonu tamit. maa ngi ci doon dégg seen yi am doon ci wax lu am solo.
waaw
na yàlla yokk leeram.
amin barke yonent bi. dama dégg moo wax naan soo ko defee ni xaw ma xel yoo xam ne dañ si ko jolli waaw moom moom Serigne Chouaïbou moom suñ saam Serigne suñ saam bay Serigne Sam Mbaye waaw waaw da nga boo ko defee ni xaluwuñ joggi xel yuñ jolli waaw ngoog noonu nga koy defee léegi nag bu neen daal soo ko defee noonu loolu mooy tuub gu wér wax na dëgg de waaw ne ndax xal boo ko gisoon doo ca teg sa tànk ba nga ca tegee sa tànkit ba mu méttee da nga koo teggi te bi nga teggee it doo ko ca tegaat waaw waaw noonu la ko waxee tabarkalla jërëjëf jërëjëf ñu ngi siyaar waa asalam yëpp waaw tabarkalla jërëjëf jërëjëf mi ñuy dem na ba teg ñeent fukki minutes ak ñaar fii ci Sud FM am na ku ne ci yoon wi di ñëw ci 823 17 17 bisimilah salaamaaleykum.
waaleykum salaam man sa soxna nga def.
sant bu baax a baax alhamdulilah.
alhamdulilah waaleykum salaam.
fooy wootee Ndiaye ay wootee.
njaareem waaw.
tubaarkàlla ñu ngi ziar suñu mbokk moomu di Pape Amadou Fall waaw.
ak waa njaareem yëpp waaw.
ñoom tuuti say tubaarkàlla aha waaw ma ma maa ngi tudd Marito Seck la tudd.
ah Marito Seck.
Marito Seck waaw.
waaw ñoo ngi kontaan émission bi di di rafetlu sa waxtaan.
jërëjëf Seck kontaan si boobu suñu tool ñoo ngi ñoo ngi déglu sa waxtaan wi.
aha al al al bi d'ailleurs.
yéen yéen a ngi ci daara ji waaw.
aha waaw.
wax nga dëgg kay waaw ñoo ngi kontaan ñoo ngi kontaan si émission bi.
wax nga dëgg waaw.
alhamdulilah ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla yàggal.
amin wa yaakum bi bi bi jaay Seydina Mohamed.
sallallahu alayhi wa sallam ak alquran.
yow jotoon ngaa jàng laxdari yu waaw am na lu may jàng nag.
ah waaw.
lan la wax ci yéex a tuub
woo sa tabi woo sa sa tabati yéex a tuub yéex a tuub yàqutu hum
yàqutu yàqu yàqu ma ne yàlla daa ci ci Abdourahmane dafa wax ne hum mu ne julli warta di yàqutu ba na xataa yooyu yooyu dina yàlla dina dina ma jubale waaw waaw mu ne jub ne ko wa- wa- waru ko def wax waru koo def fa innahu ah ndaxte min alaamati saqaay waaw wax nga dëgg waaw tubaarkàlla merto fekk waaw ñu ngi ziar waa Jurbel yëpp Paa Oudou Diagne alhamdulilah jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah.
waaleykum salaam man la Sagar Ba Sagar Ba dëkk Thiès Serigne Sagar na nga def maa ngi sant naka waa Thiès yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax tubaarkàlla sang bi ndax mën nga ma jeer hors antenne.
waaw fi ne dama soreeg mbokk mi ci nekk ci eh, fële mooy tax du xaw a jàppandi xam naa bu dee ab laaj ak yooyu su ko jotee dina ko mën a jot li waaw du ab laaj ab euh, émission bu passé woon la.
waaw Euh, bu bu ma bu ma bu ma yitteelu woon.
Mhm.
keroog maa ngi.
Waaw.
Euh, bu bu ma bu ma bu ma yitteelu woon.
Mhm.
keroog maa ngi amoon na lu ma ci piqué woon sax.
waaw mais jotuma piqué lépp parce que mooy euh, journée yi njan ki ya Serigne Abdoul Aziz.
waaw léegi euh, même ñi doon intéressé sax ñu ngi doon wax ni.
Mhm.
euh, ngay bàyyi eh, bande yi ñuy teg ñu ñuy déglu parce que pour nit yi jëriñu daal.
waaw Eh, bande yooyu nag yitteeloon ma lool.
waaw ma ne woon nag lu ma def naa fexe eh, su ma lu ma mën a fexe am bande yooyu daal.
Mhm.
eh, nga dimbale ma ci.
waaw dëgg la band yu am solo la muy bandi sëñ Abdou yooyu waaw bande Serigne Abdou.
waaw dinañ ci bàyyi xel waaw loolu eh, daal.
comme yaa ngi woote ba Thiès waaw maa ngi woote ba Thiès.
waaw léegi eh, boo jokkoo Sud FM bu ci Thiès noonu waaw.
ñoom day faatu ah, incha allah buñ jokkoo fii rek dinañ ko danañ la ko mën a wutal ah, wala nga woo ku ñu wax am di sekk fii la nekk am di sec.
821 fii sax xaar ma jël ko.